Macky Sall dictateur Sidiki Kaba Macky Sall dictateur Macky Sall dictateur Macky Sall dictateur Macky Sall dictateur Macky Sall dictateur bàyyi leen Karim Wade bàyyi leen Karim Wade bàyyi leen Karim Wade du yoon Sidiki Kaba Sidiki Kaba bàyyi Karim Wade yow yaa nekkoon avocat Karim Wade fii ah yow Macky Sall ngeen a ñëw ci nguur gi Sénégalais yi leen Sénégalais yi bëggatuñu leen Sénégalais yi bëggatuñu leen Sidiki Kaba yow ak Macky Sall wàcc leen réew li ngeen def ci leen ko fenn voilà Macky Sall la Macky Sall la Macky Sall la waaw voleur la Macky Sall dictateur Macky Kaba ngi nii Kaba ngi nii Sidiki bàyyil Karim bàyyi Karim Wade mu nekk ci élection yi Macky Sall voleur voilà voleur Macky Sall dictateur Macky Sall sàcc bu bon la kenn du ko fal 2019 voilà voleur yi bon yi ngeen doon doo leen dara tekki seen biir yu rëy yi le voleur yee le voleur de wuu wuu le voleur de la république le volet de la République wuuu voilà bañoo dal façon, on ménagera cela.